dox ci diggante guy gi ak ngel jonn numéro 2 guy gi moo la wan ginnaaw ngemboo ngemb lu weex li ngel jonn moo ngemboo ngemb lu bula li ndaysaan ñu ngi ci final bi ñaari xale yi depuis compétition bi commencé ba tey ñu ngi wane jom guy gi jël na ngel jonn jël na ko ngel jonn dina ko daan ngel jonn dina ko daan ngel jonn daa décidé ngel jonn daa décidé daan na guy gi ngel jonn da lay daan daan na ko déet daanu ko laa ilaha illallah laa ilaha illallah daan na ko laa ilaha illallah daan na ko guy gi daan na ngel jonn guy gi daan na ngel jonn guy gi daan na ngel jonn guy gi daan na ngel jonn guy gi daan na ngel jonn daan na ko Ngel Jonn daanu ko jël bu la daanu ko jël bu la bett ndeysaan Ngel